ak yow sa yi ngay def ci dëkk bi da nga ko war a bàyyi ay man la suma waay di sol ay ndoket ak ay yëre góor jigéen ak ay rob ak yëfu yooyu yëfu góor jigéen la góor da ngay def góor yëfu góor yàlla yow ak police may nag xama police xama ngeen nekk ci dëkk bi mel ni ku moom nit ñi bu ngeen dof dof loo nag man Fallou Colobane nag maay jël kombaa bi man bàyyi Fallou askan bi noonu la demee nag ku ma bëgg a xam nag dugal YouTube nga xool nga gis Fallou kolobaan noonu la demee rang muy gaaw nekk jàpp ni ma réew mi jopp ngir cëram mbayal waxoon naa leen doole góor jigéen yi dégguñ ma lesbiennes yi naaw ba seen bët dërëm mel na ku nekk jàpp ni ma réew mi jopp ngir